amuñu vision comme nag am woon projet que les Sénégalais s'attendent à ce que mu métti. Ah am nañ projet de projet bi nga xam xëy dañ koy tëggaat rek nee nañu fii ak. non non non non projet sëñ bi mosuñu am projet Sonko li mu diggee woon yëpp na yëf caaxandoo waaw PSE bi ñu doon jeté en en pâture PSE bi la lañ doon yekk FMI ak Banque mondiale. dellu si nañ ci donc appel à candidature. est pouvoir moom moo leen dab. waaw waaw waaw waaw waaw mooy lu ma xam xam nga ne ci ne ci tuuti bi moom di joxoñ waa ji di saaga ak di nang dafa yomb boobu nag ñun nañu léegi mooy ministère la parole moo gën a neex ci ministère yi nag wax rek <laughs> waaye nag on évitera de faire comme lui parce que ab gor war na bañ yenni Sonko chaque jour ñu génne ko 10 var ñoom nee nañ duñ bàyyi nit ñi nekk fii di wax lu leen neex ah. ñu ñaan ah waaw mais mais bu leen neexee nañ ubbi kaso yu bees non dama nañ ubbi kaso yu bees moi je suis prêt à def ñaanu yàlla def si ñoom parce que fi ñu jaar ñoom jaaruñ fa li ñu xam ñoom xamuñ ko nous sommes plus édu mieux éduqués que ñoom rus naa sax li Sonko doon génn ci gémmiñ ma def génn sama gémmiñ man dama du ma leader de parti rus naa ko rus naa wax lu ma gëmul rus naa wax lu dëgg dara jaruma ko ci àdduna parce que yàlla mooma bakkan mais moom li ñu koy def nii ci gor bu ay mbokkam rusul moom rusul ma xam ne lu gor chaque jour ñu vaar la ci loo xam ne yaa ko xoon jëm du dëgg ñaanu ko yàlla man ñun ñaanuñ ko yàlla mais on s'opposera ah non non nous allons nous opposer malgré ces menaces la hmm. non nous sommes. kon ay traque beeg yooyu tiitalu leen. déedéet waaw traque la mais nit ki boo defee loo xam ne yow yaa jalgati nañ nañ la tëj donte ñoo bokk ndeeg bàyyi man ak yow yaa toj yaa laaloo moomul yaa jëlloo moomul kooku c'est des principes de gouvernance ba suñ ko defee tam du ngeen wax ay chasse aux sorcières. non non non bu ñu ko defee mu jaar yoon. ok léegi léegi mais mais mais nañu doful. dofuñ quand même. déjà y a les rapports aussi yu wane vraiment. na rapport yëpp génn li ñu koy ñaan rapport Mame bi na ko tegal ci table bi dossier Adji Sarr bi na ko tegal table bi comme moom dafa jàpp ne dañ ko nootoon quatre-vingt-quatorze milliards na ko tegal table bi balaa moo laal benn laal boobu na fexe criminaliser góor jigéen ñi. boobu da nga ci am ay doute. mais c'est moom la soog waxoon mooy canal l'opposition. déjà am na benn député bu benn bokk yaakaar boo xamante ni jël na dugal na benn benn benn loi ci au niveau de l'Assemblée nationale mais kooku war ko dugal Sonko ko nit yi Sonko ko dugal mais nag li may njëkk def bañ ko yóbboo assemblée kat c'est Benno qui s'y était opposé aussi waaw waaw mais kooku depuis 66 mais mais mais mais kooku mais jëlee dana depuis 1966 mais criminaliser la waxoon moom on va le Macky Sall la mu waxoon dafa leer nañ la mu wax Obama la mu wax premier ministre bu Canada mais Macky luñ ko yëkkul amul élection locale ba ñu campagne nee na Macky bu ñëw dafay doole góor jigéen ñi yow Macron ñëw dóor la ci làmb ji ba ngay génn saako yi nga sotti glace naan c'est toléré au Sénégal nous allons le gérer en autre manière. mais est que nekk toléré bi xëy na peut-être ni ko nit ñi déggee la xëy na moom peut-être bëgg ko woon a. ni ko waxee ko li gën a choc soo ko il dit je viens en qualité de premier ministre en chef de parti. déjà amuloon pour dem université parce que demee PS bu amee manifestation am kuy dooleel góor jigéen yi bu ñu neexee yóbbu université on pas le droit le recteur n'avait rien à faire dans manifestation recteur bi d'ailleurs moom dafa jàppoon ne euh, peut dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko soumettre li nga xamante ni moom moo di euh, communiqué boo xam ne nii c'est c'est c'est c'est moom moo ñëw ñu di def moom loolu la foogoon moom moom en personne génn na mm-hmm. mais en quelle qualité la mën a wax ne nous le gérons kii kii nous le chef de parti le gère à sa manière kon waa Pastef ñoom ñooy gérer góor jigéen à leur manière mais de qui se moque il n'avait pas Aguelé te lu ñu permettre waa la veille de la journée mondiale de l'homophobie mais c'est un scandale ba pare réew mi mais ñëpp ne tekk kenn waxul li ma jàpp mooy dëkk bi naa fexe ñoo ñoo ñëpp ñu wax dëgg. lañ la lañ doon xas Macky mais dañ ko toléré dañ ko banaliser Mame Matar Gueye laa dégg mu wax. Mame moom wax na. moom laa dégg mu wax. c'est que nag lobby góor jigéen dañ bëri loo de Macky la de. mais waa ànd sàmm jikko yi moom jàpp nañ ne peut-être Ousmane Sonko li mu wax. waa ànd jikko yi sàmm ñu kenn seen bopp la sàmm ak seen poche duñ tous ñoom. lu ne nañ njëkk Macky mais na toléré Sonko li ma gën a métti et puis c'est m'a fait pour en fait le fait de le reniement de Sonko c'est ça qui me choque wax waxee di Sonko nekkee woon les gens la banalisent comme si waxi opposant la woon quoi mais à li limite scandaleux et puis dem université ay étudiants di man maa njëkk législateur bi njëkk dugal mais ça c'est mais c'est scandaleux et personne n'en mu ne c'est toléré mooy ñu dem fekki Kaolack ku ñu tuumaal góor jigéen suul ko ñu suñu ko lakk ko loolu mooy toléré loolu mooy toléré c'est pas toléré au Sénégal du tout te moom du discours boobu waxoon Sénégal du loolu la promettroon Sénégalais encore une fois chaque jour il fait un reniement Diomaye nag war a jël responsabilité fauteuil bi bu dee fees na bu dee feesu ko nag les Sénégalais apprécié na li ma jàpp daal mooy yéen sans poids jom alaa li ma sax dama ko xaw a yërëm moom. Diomaye. waaw dama ko xaw a yërëm. ndax la. Diomaye daf mel ne xamul sax li ñu ko dénk lan en tout cas mu ngi voyage di dem. ci di wër au niveau d' accord naa ci moom li mu def oh, xool li nga xam ne moo di panafricanisme. Euh, voilà mu ngi dem ci yenn réew Afrique yi. di di waxtaan moo yi nga xam ci li mu def Gambie d' accord naa ci. def Guinée bi Bissau d' accord naa ci parce que dëkkandoo jàmm moo ci gën. et puis loolu dafa approprié wu principe qui était cher à Senghor les cercles soo buggee jàmm sa dëkk ngay fexe am jàmm sa dëkkandoo da ngay fexe sa kër dëkkandoo am jàmm j' apprécie faruma ak moom mais j' apprécie. d' accord nga également mu dem seeti politiciens yi nga xamante ni mu am ay Mali. waaw non xam nga xam nga ñoom politiciens yi moom xam naa ne waroon leen gënal sax joomaay dem seen dëkk. Hmm. démocratie ko fal. loolu également c' est un honneur pour le malgré coow li malgré tiit gi gars yi amoon yëpp démocratiquement lañ falewaat encore suñu président donc c'est notre euh, donc troisième alternance sant yàlla la ñamu dem ku d'état leen fa am na ñoom tamit comme Sonko rek la ñu diggoon seen population nax leen ba falu donc développer ce sentiment anti-français te alors que donc au contact de la réalité tu sens que les choses ne sont pas faciles réew mi aussi c'est pas parce que dama dama dama leen contre que damay wax lu ma gëmul wàññi dund bi mais dina jafe créer emploi pour les jeunes dina jafe Macky a beaucoup lu ko naa Macky Sall a fait beaucoup d'efforts dans le de la formation de la jeunesse dans le cadre de l'employabilité de la jeunesse beaucoup mais meñ koon jàmm lañ doon lañ leble moo leen dab tey cag-cag niñ mën ci dëkk bi sëñ bi xëy na dañu waxante rek mais dafa dafa rafetul te ñoom ñoo leen doon encouragé les cag-cag la mënoo too daw sa oto dëkk bi ndax cag ndax cag-cag personne ne peut plus circuler a de l'indiscipline y a ñëpp xoolee keroog image boo ne terre BRT bi di ñëw waaj a jël sens intime dajee perte bi ce pays là il faut que l'on réorganise bu fekkee nag populisme bañ nekkoon dans l'opposition lañ bëgg a joree réew mi mais pauvre donc euh, de nous les Sénégalais loolu la ñu